mu dikk ak ñun ci euh, ñu dem ci yàlla ci Alaaji Sidi Lamine Niass. Euh, Sidi Lamine euh, nit la koo xamee ne ay dimension dafa ëpp àddina bi. Mhm. dafa dem ba ci géej gi. Mhm. dem ba ci asamaan. Mhm. dugg ba ci biir suuf. xam naa wax jooju nag dina jaaxal ñu bari. dem ba ci kaw asamaan mooy booy liggéeyal yàlla yàlla dafay jël sa jëf di yëpp ci kaw. te Sidi Lamine ci liggéeyal yàlla la nekkoon. bàyyeewoon ñëpp nag. Euh, ki am ak ki ñàkk ci siidi ñoo yem te loolu jikko yonent bi la woon sallallahu alayhi ndax kii am un million ñëw fii di def publicité ak kii ñàkk tali ak ndox ca dëkkam ñëw fii ñoo yem ci siidi joxewul dara mm-hmm. kii dana def dana dana fay ñu jàllale ko li mu bëgg mm-hmm. kii dina ñëw ak ay morso bi xonq ñu jàllale ko li mu bëgg mm-hmm. kon ku am ak ku ñàkk ñoo yem ci siidi loolu sant yàlla na jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko mel woon nag mu jaaxal nit mu jógee wax naa ne moom bu ko mu toog di laaj addiya di laaj addiya bu ko neexoon mu toog am ñu muy yebal ñu ko jëlee jël addiya mm-hmm. waaye yooyu yëpp def ko ndax bu toogoon ne ñas laa sant rek doy na ndam mm-hmm. waaye bu ko neexoon it ne yéen ñi sant ñas sax kaay leen jox ma addiya ndax man suma yaay shérifa la waaw waaye loolu yëpp def ko macha allah euh, boo ko gisee euh, takku liggéey jéem a teg mbir yi ci yoon. Mhm. loolu nag jàpp naa ne yéen ñi nekk Walfadjri yëpp dafa nekk ndono loo xamee ne bu am bu njëriñ la. Mhm. Euh, nekk référence ci Sénégal yëpp nag. dëgg la mhm. waaw ndax euh, benn bis dégg naa ko muy wax ak sëriñ bi. Euh, bu ko Ablaye Wade di proposer poste ministre. mu ne ko soxlawuma ko mhm. jëlal diw yaakaar naa Cheikh Bamba Ndiaye mhm. yal na ko yàlla yërëm moom itam bu ko neexoon dem mu tijji loolu mhm. su ko neexoon fii ñëpp di jaar pour bañ a fay taxe pour ba am lii ak lee mu jaar fa mais jaar fa moom takk eh, ndiggam liggéey kenn musul jam siidi te musul woote it jiital doomu jaamur yi nekk ci ginnaaw dëgg la fu mu wootee moom mooy nekk ca kanam yonent bi sallallahu na amul benn xeex bu mu def lu dul ne moom moo nekk général ba Sidi fu mu woote mooy général. 19 mars ca place de l' indépendance place Tahrir yaakaar naa ne wane na ko sëñ Baara. wallaay wallaay euh, bu weesoo liggéey bi nga xam sa waajur jot na ko liggéey ak moom yow jot nga liggéey ak moom ci Sénégal wala ci Italie. Euh, Italie la parce que bi mu ñëwee Italie jamono yooyu euh, boo nekkee Bergamo pour nga seetaan. Euh, mbiri Sénégal. Mm. jënd kasetu vidéo. Hmm. maa ngi fàttaliku ko euh, musique yi. Mm. jàng yi. Euh, même journal a journalu télé yi hmm, dañ ko daan enregistré hmm? Hmm? ko cassette jël ko yow ngay seetaan journalu trois mois nga koy seetaan tey loolu moo fi amoon euh, bu match amee euh, gars yi dañ daa jógee Bergamo daw ba Brescia pour mën ko seetaan yi ci ak làmb ak lamb si di gis ne lii war na mën a ñàkk mu ñëw di yee moodu yi pour wax leen ne mën ngeen am seen yëfi bopp mën ngeen a demal seen bopp. Mhm. bi mu ñëwee Bergamo bokk naa ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dalaloon. Mhm. bokk naa ànd ak moom ci tournée yi nga xamee ne mu ko dem def conférence yi di wër moodu yi naa leen kaay leen ngeen jënd carte yi. ngeen mën di seetaan seen i télé. waaye ngeen xam la ca réew ma en mm. direct. Mhm. voilà moo gën ngeen di seetaan journalu trois mois ci ginnaaw. Euh, euh, vraiment amul sens parce que match de Euh, deux semaines ci ginnaaw nga koy mhm. seetaan léegi mu ne mhm. yooyu yëpp mën naa ñàkk parce que ci réew mi ngeen bokk mhm. te seen participation mu ngi ñëw ci réew mi kon nag kaay leen ñu ànd bokk liggéey loolu conférence yu bëri ànd naa ci visionnaire la macha allah ba tey euh, buñ demee ba hmm. Italie mën a am tele boppam hmm. c'est grâce à Sidi Lamine Niass macha parce que ndongoom taalibeem Euh, moo gis ne Sidi li mu def nii Sénégal mar mën naa ko mën a def fii. Mhm. mu roy ci moom muy le directeur bu Africa 7. ñu ah, koy nuyu euh, de Aliou Ndiaye ku di ku baax ñu koy nuyu euh, baax. vraiment du sonn ci. ci ci ci tudd Sidi Lamine. Mhm. man moom a njëkk a jox micro moom a njëkk a dëpp caméra. Mhm. Euh, mais ay émission mi yëpp euh, ci Diaspora 24 mhm. daawul. tay di tudd Sidi Lamine Niass. ci njàmbaaram ci pasteefam ci ci ci ci ba mu bëri. ñun sax buñ daa toog nii di waxtaan ci biir télé bi rek. da ngay gis yu bëri dafay jox référence ci Walfadjri. macha allah nekkoon na fi kon loolu kon change la. jàmbaar la loolu yëpp mooy résultat wu liggéeyu Sidi Lamine Niass. ak télé yu bëri ci réew mi. fii ci biir réew mi. ak marque de télé yu waaye da ngay gis ne gars yi dañuy imité wal fajir lu bëri te nag fu nekk nag élément wong fa wallaay ndeysaan macha allah nekk élément si da ngay wax léegi jërëjëf da ngay wax léegi ci équilibre Sidi hmm. ni mu digg doomoo defe naa këru diine yi aussi noonu la ci mel waaw euh, këru diine yi noonu la ci mel Sidi bu demee tuuba da ngay yaa jàpp ne kii am Mbàkke Mbàkke la dëgg la Sidi bu demee Tiwaawan da ngay jàpp ne kii sa Touba Alxaaji Malik la su demee ñaseen noonu la fay mel bu dee fu mu dem noonu la xamal la mhm. mm-hmm. yemale ñëpp mm-hmm. moo ko may mm-hmm. moom bu demee bu bu ko neexoon bu demee Touba ni man maay seen sëriñ parce que euh, euh, sëriñ Touba xaadim rasul radiallahu anhu dundam yépp da ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sii di sëtu yonent bi la kon bu fa demoon bu ko neexee ne man maay seen sëriñ waaye du ko def bu fa demee day wane ne man taalibe laa ci kër gi sii di bu demee Medina Baye su ko neexoon ne man kat ma xalifa bi ñoo bokk bàyyi. Mm-hmm. fi mu toog fa toog. Mm-hmm. waaye déedéet bu fa eggee taalibe la fay nekk. dëgg mm-hmm. gis nga benn bunt maam Abdul Aziz Dabaax radiyallahu anhu. Euh, tey booy xool kenn koo xamee ne ay jikkoom. jël nañ ko fi ñu biir Sénégal Sidi Lamine la. Oh. maam Abdou dafa daa wax mu ne. benn bunt moo des pour yegg ci yàlla mm. mooy suufeel sa bopp mm-hmm. Mm-hmm. te sii bunt boobu moom da cay toogoon mm-hmm. fees fa dell nag kon ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na allahumma amin macha allah loolu itam dafa fekkoon rek sëñ Baara oustaz Abdou Sayer euh, que ne ay waajuram itam noonu lañ doon doxalante noonu lañ doon doxalee waaw maanaam waa di waa di seetante waaw bu fekkalante jëflante jëmm jee ko mën a nga ñëw tamit lépp loo xam ne itam mi ngi koy mi ngi siy sóobu laata mu siy sóobu mm-hmm. day dem tàggu leen gis nga ko livre bi bu mu waroon jëlaat moolaat livre papam ji xalifatul xaaj Muhammad dafa dem ci këru diine bu nekk ñëw eh, am am am sa ndigal nga ñaanal ko itam te gis nga bu ko neexoon mm-hmm. eh, gis nga këru diine man ci laa bokk wallaay si nga bokk bu la neexoon da ngay jël livre yi dem yóbbu ko defar ko wane ne man maa ko defar ñëw génne te kenn mënu ci dara mm. Euh, kilifa yi liñ fi bàyyi kenn moomu ko. dëgg la tey boo demee Niassène euh, Maolana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu liñ fi mm. bàyyi. Mm, du doom yee ko moom du sët yee ko moom. Mm. ñëpp ko bokk àddina bi yëpp ko bokk. parce que ñoom waxuñu woon pour famille bi. Euh, Sidi bu ko neexoon mu def noonu. dëgg la mais ci ci woyafam. Mm-hmm. mu ne déedéet naa dem wax ak samay mag naa dem wax ak samay rakk. ku nekk mu dem ci yow sukk ci sa kanam wax ak yow. jël ko def ko nag ci moyen boppam. dëgg la ba pare nag ku nekk nag. am lu mu jëflante ak yow. parce que macha allah tabarkaal mooy eh, Maolana eh, si si si Lamine Niass yal na ko yàlla yërëm te yéex ñu yokk leen ñu si barkeelam doomam itam gis naa ne moom ba papam wàccee liggéey mi ngi aw si yoon woowulee ànd Cheikh ñoom ak eh, ñu dugg ak moom si alaaj si Lamine Niass ndax kenn la woon si moom moom itam gannaaw kenn la woon si mm-hmm. papam kon faaw itam ñu dikk si ak moom ndax giseewaat ak moom du nekk lu yomb day ñibbiwaat mm-hmm. fa nga xam ne moo di Italie mm-hmm. di Bergamo nee naa la modérateur li itam gis nga ko bés bi ñu jël jagleel ko gudd juddu yonent bi sallallahu wa sallam ñu ko doon amal ci Italie ak mm-hmm. waa assos bi euh, moom moo nekkoon modérateur bi gis nga mm-hmm. bañ ko tegee fii Sénégal itam yaakaar naa nga ko seen daara voilà